Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal jàmm ci yëglekaay yi lu jëm ci topp gi ñuy topp ñu luubal alalu réew mi Ousmane Sonko di élimaana jooriñ bu Sénégal ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi di réew mi quotidien ne mbir yi du yomb benn yoon ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo sàcc alalu réew mi kenn ku ci lekk dërëm nu mu gën tuuti rek daan ko gëqaat ci biir yëglekaay bi ma ngay xam ne nag ne yàkkamtewuñu dara ci seenub liggéey daañu topp benn par benn ñi nga xam ne rek ñoom ñoo luubal alalu réew mi kenn ku nekk war ci yow daañu ko def laas quotidien dellu soir ci détournement yi nga xam ne rek moo soxal moomeelu askan wi nag yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay song ñi nga xam ne rek dañ leen a dippee ay criminel financier les éco yëglekaay ne discours bu mu amal moom élimaanu jëruñ bu Sénégal nag jëmale ko ci sàcc si nga xam ne rek ñoom ñooy lekk alalu askan wi mu ne nag képp ku laalee ci alal joojee ñuy tudd rek daan ko delloo waat ci askan wi amul kenn koo xam ne rek daañ la bàyyi ngay déstabiliser réewum Sénégal te suñu liggéey bi ñuy amal amul benn compte bu ñu ciy rendre jëmale benn way politique wala benn taskatu xibaar li am solo daal mooy li ñu war a def daan ci nekk di ko def lu jëm ci wàllu dund gi nag moom Ousmane son ma ngay xam ne ni daal dana am ak wàññeeku gu ci am balaa yàgg dara Vox Populi xëyee tey ji nag bilan boo xam ne amal nañ ko ci diggante ñaari weer ñu jiite réew Sénégal ñoom nag jamono ji ña ngay tudd opposition bi ci ay yoo xam ne rek jéem nañu leen koo gasal yéenekaay bi dellu suwaat ci kàddu yi nga xam ne rek Ousmane Sonko yëkkati na ko ne nga xam ne rek ñoom ñoo géré woon Sénégal boobaak léegi nag xam nañu bu baax direction bi nga xam ne rek foofu foofee la ñu jëm ak ñoom te bis bu ñu amalee suñu liggéey ba noppi nag résultat yu mucc ayib daañu ko génnee teg ko ci kaw taabal ji moom élimaanu jëwriñ yi yéene kaay bi ne ma ngay jàjjuwaat jëmale ko ci politique bi nga xam ne rek moom la bëgg amal jëmale ko ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo luubal alalu askan wi moom Ousmane Sonko di xam ne ni nag daañu jël lépp lu suñu ay responsabilité nag bu ko defee ñu daal di amal suñu liggéey te du am benn jafe-jafe damaa bëgg rek ñoom ñooñee ñu daal di tëdd nelaw ba yandoor ndax dinañ fexe ba ñu delloo siwaat koppari mi te loolee jàmm rek moo cay mujjee quotidien yëgle kaay addu jëmale ci leneen mu soxal coowal général Kandé yéene kaay bi ne ay du yem ci bopp boroom directeur de publication bu La Tribune nag moom démb yoon da koo convoqué ba tey jii war naa delluwaat ci kanamu àttekat bi mook directeur de publication bi di Le Quotidien waa kap nag jamono jii ña ngay sàkku ci kilifay Sénégal ngir ñu daal di am raison garder la yëgle kaay ne coowal général Kandé kay ñaari taskatu xibaar jamono ji nag yoon ma ngi leen di topp enquête yëgle kaay ne lu jëm ci wàllu arrestation pression fiscale jamono ji kay moom mbir yi neexul benn yoon ci ñii di taskatu xibaar yi ndax coowal général Kandé nag tax na ba directeur de publication bu la tribune ak bu le quotidien ñu daat leen di convoqué foofee ci section de recherche mu njaay Cissé bu ONG 3D nag di sàkku ñu daal di dakkal lépp loo xam ne rek mooy xoqatal bi ñuy amal jëmale ko ci kaw presse bi lu jëm ci bor bi nga xam ne rek état bi bëggoon na koo baal ñii di taskatu xibaar yi Mamadou Ibra Kane jamono ji ma ngay naqarlu nag li ko Macky Sall jaaralewul ci ab décret Ibrahima Lissa Faye nag di sàkku ñu taxawal ab cercle de concertation ci seen diggante ak état bu Sénégal les éco yëgle kaay ko ne ginnaaw ñaari weer yi nga xam ne rek def nañ ko ci bopp Sénégal régime bu yees bi tàmbali naa convoqué xaat ñi di taskatu xibaar yi moom directeur de publication bu tribune démb dañu ko placé woon garde à vue laataa ñu koo bàyyi ci guddi gi tey jii directeur de publication bu le quotidien moom la ñu convoqué Mbaw di samplaaj ci biir yëgle kaay bi ne menace yu bees yi nga xam ne rek moom la kilifa yi Sénégal nekkee nag lan lañ ci jublu ak fu ñu jëm njiitu réewum Sénégal ngir mu daal di dakkal lépp loo xam ne rek moom moo jëm ci xoxatal yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci kaw askan wi addu jëmale ci leneen mu soxal wàllu transport ak yeesal yi nga xam ne rek moom la ci kilifa yu Sénégal bëgg a indi lu toll ci trois cent quatre ci ay bus à gaz ko renforcer BRT bi ak lii di TER bi Le Soleil yëglekaay ne lu jëm ci wàllu réseau de transport en commun ci Ndakaaru nag lu ci deux cent soixante-sept milliards moom lañ ci fas yéenee dugal ngir yeesalaat ko démb la doon amal lancement bi ñoom waa SUTUT nag mu nekk phase bu bu njëkk boo xam ne rek boobee projet dana jëm ci salaat nag lii di échangeur bu aan ak yeneen i sites yoo xam ne rek daañu fa amal ay tabax bokk na ci ab centre de mobilité foofee ca Grand Médine ab installation atelier de transformation de gaz naturel bu xarañ te mucc ayib addu jëmale ci wàllu napp gi waa GAIPES ña ngay fësal nag bato yi nga xam ne rek ñu ngi nappee fii ci waaxu Sénégal te amuñu ay licence démb ci am ndaje muñ doon amal ak waa forum civil ca lañ xamle nañ ñeen fukki bateau yu ñu immatriculé nag ña ngay napp fii ci waaxu Sénégal amuñu ay licence ci ay téeméeri immatriculation yu yees ci ay bateau Sénégal nag ci diggante deux mille dix neuf à deux vingt quatre amal nañu ko te bokk na ci yooyee nag téeméer benn yoo xam ne rek yàggul dara bi ñu leen immatriculé juróom fukk ak ñaar ci ay bateau yoo xam ne rek am nañu ay licence ñu daal di koy renouveler ci atum deux mille vingt quatre ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay bateau yoo xam ne rek dañ leen a immatriculé foofee ca pavillon Sénégal te amuñu ay licence ci atum deux mille vingt quatre jeexale yëglekaay ak tàggat yaram Sénégal RD Congo ñeenteelu galop d'entraînement bi nga xam ne rek gaynde ñu ngi koy amal yéene yéenekaay bi ne Aliou Cissé ba nag si nag gisagul ay colonne vertébrale am addu jëmale ci suñu làmb yéenekaay bi nag di xam ne ne ay jongante yu nar am solo nar naa am ci ayu bés ji nag waral ba mu xëy daal di bind ci xëtam bu njëkk na ab week boo xam ne rek ñaari bii la nar a am ci diggante faas ak Guédiawaye mbokk yi léegi noonu fas yëglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may seen revue